jërëjëfati jëmale ko ci FIFA mi nga xam ne tey jii xéewal yi nga xam ne war nañoo mën a may ñu euh, defar gazon bii nga xam ne waa Thiès dañ ko yàgg seen yàgg ko seet ñoom xéewal yooyu ci ñoom lay waaye mi ngi cosaanoo ci jamono bi ñuy organiser tournoi UFOA fii ci Thiès yàlla dogaloon ma may bokk loge bi ak présidence fédération sénégalaise de football Euh, ñu ciy waxtaan wax ko coono yi nga xam ne nit ñi am nañ ko amoon yéene et vraiment il faut reconnaître que ci ginnaaw am na benn citoyen thiessois bu ñuy wax El Malick Seck bu offriroon à Thiès un gazon naturel mais malheureusement dundul ba nga xam ne euh, bi mu ci waxtaanee mu xamal ma ni am na jumtukaay yoo xamante ni FIFA yoo nañ leen war nañoo mën a seet nan la ñu mën a fexee diggante ville de Thiès ak fédération waxtaan ba déggoo ci nan la ñuy xaatimee luy war a mën a indi loolu ñu def ay waxtaan yu bëri yu yaatu ba loola aboutir kon dafa jaadu ñu ne ko jëf maa doon wax léegi ne jërëjëf moom ëpp doole tubaab ndax li tax jërëjëf ëpp doole tubaab dafay def l'accent sur li nga jëf da ngay dañuy wax ne li nga jëf jaroon naa jëf loolu mooy jërëjëf ñu bëri miin nañu jaraw la ndax euh, ñi bëgg xewul siise siise yeeg jaxte jaxte yi jaraw lakk mooy nit ki lim la jox neex na la ba jaroon na mu lakk ba jox la loolu kon jërëjëf boobu loolu lañ ci bëgg a wax dañ leen bëgg wax ne waa Thiès bég nañu mais bëgg nañu aussi ci ministre bi nga xam ne boo non seulement teew na tey waaye lu jiitu loolu won nañu yéene ci gunge ñu ci ginnaaw gazon bi yeneen liggéey yi nga xam ne daañu leen soxla fii ci biir stade bi ngir mën ko naatal ngir stade bi su melee na mu war a mel mooy permettre que stade Lat Dior bële mën a nooyi ndax compétition yu bëri rencontre yu bëri fa la ñuy amee mais bu fekkee ne boobu rek moo fi nekk jàpp du yàgg mu yàq moom itam ndax loolu moo daloon gazon bi fi newoon fii alors kon euh, loola ñu ngi koy gërëm ci waajal boobu mais di gërëm autorités yi nga xamante ni ñoom ñoo teewal euh, euh, président de la république fii ci gox bi tàmbale ko ci gouverneur jaar ci préfet jaar ci sous préfet yi ñooñu boobaak léegi lépp lu ñuy def ci wàll wi ci wàllu xalaat ak lépp ñu ngi ciy gunge di wax nag ni euh, ñi nga xam ne ñoo fi nekkal sportif yépp rawatina mouvement nawetaan ñooñu ñépp amee nañ leen gërëm ndax lépp lu ñuy def te mu jëm ci wàllu xalaat Euh, bu jëm ci lan la ñu war a jébbal waa fédération bi wala lan la ñu war a jébbal waa FIFA ba mu ñoŋ ñooñu ñëpp dugal nañ ci seen xalaat mu am solo su may wax nag ci turu ville de Thiès waxuma rek ci turu administration bi fa nekk waxuma rek. ci turu bureau bi waaye damay wax tamit ci turu conseiller yi nga xam ne ñoo ñooñu ñëpp bu ñu mënee dara ñu ko mënal ndax tim ñoo nekk ci suñu ginnaaw en tout cas daal di leen xamal mbégte wu waa Thiès yëpp y ñi nga xam ne xëy na duñ fi jël kàddu kàddu ndax contexte bi ñu nekk moo ko waral ma bëggoon terminer nag ci loolu euh, di ñaaxaat nit ñi mbir mi jeexagul tey nañu amee woon yéene defe ko cérémonie de lancement bi dañu obligé tenir compte du contexte puisque ñun ñoo war a nekk les premiers yi war a donner le bon exemple njiit mooy joxe le bon exemple nangoo renoncer à un certain nombre de choses pour que yeneen citoyens yi mën a topp ñëpp xam nañ Thiès ni mu mel ci wàllu sport ñëpp mel nañu ci xam nañ Thiès ni mu mel ci wàllu football ñëpp xam nañu Thiès ni ñu doon xaare événement bii kon suñu toogee mu am ay Thiessois yu ci am sañ-sañ nag te mënuñu fi teew dafa fekk ñun dañoo jàpp ne ñoo war a jiitu ci respecté mesure yooyu nga xam ne moo ñuy permettre ñu sàmm ñëpp parce que bu fi nit ñi newul football du fi am ëllëg su nit ñi survivrul terrain bi du am njëriñ su nit ñi amul jàmm kenn dut ko tal kon nit ñi fexe ba nu gën a gaawee loola jóg fi moo gën te pour mu jóg fi nag il faut nit ñi dégg kàddu président de la république président de la république waxul kenn jeex na dafa ni am na noo xam ne suñ ko defee dootuñu dund même mu ñu Covid rey waaye am na noo xam ne suñ ko defee it Covid a nuy rey kon nan la ñuy def ba dund te mucc ci Covid loolu mooy nañu dund nañu dox suñu ay farata waaye nañu jël matukaay yi nga xam ne wax nañ leen ba ñëpp mën a survivre muy jàmm ci ñëpp jeunes yi protéger seen i waajur kenn ku ci nekk protéger sa am di jàmm mais éviter la stigmatisation au lieu de dire à keneen ki sori ma yow na nga koy wax maa ngi lay sori ngir wóoluwuma sama bopp ndax wóoruma ndax am naa ko wala ëmma ko donc su ma sorilee sama bopp sori naa la te du ma jote ak yow pour au delà de Covid société bi bañ a tas yàlla sàmm leen defal leen tawfeex je voudrais commencer par dire jërëjëf je sais que je suis dans la partie française de mon allocution mais jërëjëf est beaucoup plus fort que merci merci à la FIFA qui a bien voulu mettre à notre disposition les fonds forward qui vont nous permettre de réaliser ce terrain en Gaza. Djerejefati à la Fédération sénégalaise de football, mais particulièrement à son président, Maître Augustin Senghor, et à travers lui, à l'un de ses représentants ici au niveau de la région, le président de la Ligue régionale de football, M. Papsililo. Quand je salue la fédération, je salue l'ensemble des membres de la Ligue, puisque la Ligue représente la fédération ici au niveau de la région. Alors, c'est au cours du tournoi de l'UFOA qui s'est tenu ici à Thiès, euh, pendant que nous partagions euh, justement euh, la loge que nous avons eu des échanges approfondis qui nous ont permis d'enclencher le processus qui euh, est en train d'aboutir justement à cette cérémonie de lancement de travaux de réalisation d'un gazon synthétique ici au stade Maniang Soumaré, qui, il faut le dire, est le véritable stade de Thiès du point de vue de son emplacement géographique mais du point de vue aussi de son histoire euh, jërëjëfati aussi au ministre des Sports qui aujourd'hui nous fait l'honneur d'abord d'être présent mais qui s'est également engagé avec euh, tout son cabinet à nous accompagner pour tout ce qui, au-delà du gazon, pourrait permettre à cette infrastructure disons, d'être à la hauteur des ambitions nourries par les sportifs de Thiès et par également les sportifs du Sénégal. Euh, nous savons qu'aujourd'hui, le stade de la Dior accueille de, euh, disons, de grands matchs, de grandes rencontres internationales. Et ce stade va avoir besoin, de respirer. Et le stade Mania Soumaré, réhabilité refait euh, permettra au stade Lat Dior de respirer. Et à Thiès, d'être au rendez-vous justement euh, des attentes non seulement des populations thiessoises et particulièrement de la jeunesse, mais également des ambitions nourries par l'ensemble des Sénégalais et de la sous-région aussi, pour notre ville. Euh, à l'ensemble des autorités administratives, euh, euh, à commencer par le gouverneur, le préfet, les sous-préfets, qui n'ont cessé de nous accompagner pour justement la finalisation de ce processus. Mais je ne peux pas terminer ces remerciements sans parler de l'ensemble du mouvement sportif thiessois, particulièrement du mouvement navetan qui, depuis le début, euh, autour justement de la ville de Thiès, participe à l'ensemble des rencontres, participe à l'ensemble des réflexions qui nous ont permis justement de signer cette convention avec euh, la Fédération sénégalaise de football, mais fait des conventions donc destinées un peu à attirer ces appuis de la FIFA. Euh, la ville de Thiès, au-delà du maire, euh, je parle du bureau de la ville de Thiès, mais je parle également de l'ensemble des conseillers dit la ville de Thiès, donc dit Djeredjefati, à tous ceux que j'ai eu à citer tout à l'heure.